ñëpp ñoo ñàkk ki ñu ki fi ñun ñëpp suñu papa la ñun ñëpp moo ñu boole moo ñu boole njaboote donc maa ngi leen koy jaale di ko jaale Sénégal di ko jaale le monde entier di ko ñaanal yàlla fee mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge ci barke borom Touba waaw looloo ñu ñëw bokk ak suñu mag suñu xarit ak waa kër gi yëpp métit bi ndaxte comme ni mu leen juree rek lañ juree ñun tamit suñu papa yi ñu juré non la leen juré ño bokk nday d'après tout ño bokk nday ño bokk film yalla na jamm sax te it euh, fa mu jëm yalla nako gënal fi mu jogé te am ci yaakar bu baax merci beaucoup gars at kon on Seck kenn la won da ci ñun te ku joxon nit cër la ku bëggoon ñëpp ku respecté won ñëpp man ba mu nekké Cap Manuel dama ko daan seeti semaine bu nekk ma dem seeti ko mais da ron liggéey liggéey lu bari ci at bu di xalaat gennam pour bu paree nan lay liggéeyaatee ak li nga xam ne moo di fans yi ñoo di artistes yi wax dëgg euh, c'est une grosse perte pour la musique sénégalaise une grosse perte pour la culture sénégalaise mais il faut toujours s'en remettre à la volonté divine c'est Dieu qui l'a voulu ainsi on n'y peut rien yal na ko yàlla yërëm te yéexee ñu mu dëddoonu jàmm ak salaam nag jaal ko maman Kiné Diouf jaaga jàmbaaru jigéen jaal ko wali ak njaboot gi yëpp jaal ko artistes yëpp jërëjëf jërëjëf merci beaucoup li ma mën a xamal daal sénégalais yi drapeau daanu na wala drapeau d'Anotina. gis nga kat yi njëriñ Senegal, lirik am Sénégal li rek firne bi won nako rawati nako xamanteni day tok bir studio di xalat te bi xalat kenn duko fekke mu la yeddal sa dom sa bir nek cion sek nako ko Sénégal yëpp ñaanal bu ko kenn fàtte. gis nga ñaan Sénégal tam nañ bu nit gañor dañ koy ñaan rek baye mais dama bëgg kep kuy kilifa heure bo yow nang koy ñaan cion nit ku bax la won te barki sayidina muhammad Rasulaay way jeexna bu way deug rek nga bëggon dégg ko na ko Sénégal yëpp ñaanal ba pare yéen ngeen gën a góorgóorlu yéen journaliste yi ak yéen ñi nga xam ne yéen yéen a ngi wane suñuy mbir danañ ko ñaan lillahi a rasuli bépp woykat bu fi nekk di def lu rafet ngir yàlla ak yonent bi day leen def le tout di ko wone ndax gaa yi xam nga ndax gaa yi gën di def lu rafet parce que nit kuy def lu rafet dina tax ku ko dul def bu bu xoolee ci moom di ko def te Thione Seck dafa def imaginal woy na ba woy lii lii mu def nii tey da koo woy cheikh yi ci biir suuf Thione Seck woy na ko nu ko ñëpp ñaanal ba pare njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo lépp loo xamante ni Thione Seck bëggoon na ko def muy bébétam ci àdduna mënatu ko eggale mais yàlla na ko yàlla def ci waale. Euh, yéen lan ngeen jot a jàng ci keppaaram. keppaaram mooy projet bi nii. ci lañ bokk. ba pare boo xoolee 2009 bi euh, euh, kii ki fi nekkoon kii maire Ndakaaru kii waaye Pape Diop. sama première rencontre ak Thione Seck quoi. Pape Diop maire de Dakar mësuñoo jël man Aline Mbaye Nder Youssou Ndour ak Thione Seck juróom laay njëkk bokk moom seen mais Pape Diop daf ñoo gëmloo ni yéen ñëpp da ngeen di playback mais Thione mel num Thione Seck moo indi orchestre moo indi matériel bi indi lépp juróom la ñuy njëkk am euh, rencontre comprendre nga war a daje biir méridien pour woyandoo fa comprendre nga ma gis moom ay jikko rafet muy nit koo xamante ni li ma gën a neex si moom mooy du jàpp mer Thione lu ko métti da koy wax tay tay mu jeex tay tay te yonent bi bëgg na ko mel noonu. Uh-huh. ngir yàlla ak yonent bi ak fu nit mënti nekk ci àdduna man Abou Thioubalo maay ñaan na ngay ñaanal Thione Seck yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana waaw jaajëf gaay tourné na vidéo yëpp man mi yëkkati na ma xaalis bi ma demal tourné sa image image yooyu ba léegi génnagul ñu ko denc moom mu jël moom mu dem individuellement dem mbuur jël image yëpp tourné lépp teg ko di xaar image yi bientôt di ngeen ko gis kon mom préparé woon na lii daal du deug wa préparé woon na lii waaw. di ñew mercredi bi c'est-à-dire dans 3 jours la ñu waroon def ben émission bu mag fi ci kërëm Balago TV pour wax sur la paix pour wax jeunes yi ne leen dox leen doxinu jàmm té ngeen xamni lepp lépp loo leen wala ngeen laal ko seen bop ngeen di laal parce que jeunesse bi dañu am yaakar ci yeen dañoo am yaakaar ci yéen pour ëllëg Sénégal gii ñu nekk coon def ci liggéey liggéey bu am solo lool la mujje waxante ak moom. yéen ñaar ngeen man coon bi ma amee moom ak Youssou Ndour man ma leen yar ci Gueule Tapée ci benn kër sama kër yaay. aji rakki sow yàlla na yàlla xare ajina moom suma yaay jooju maa leen yar ñoom ñaar mu nekk kër Samba Xoyaan fële

parce que bu ma jaalee Sénégal yëpp jaale ko adduna bi yëpp jaale ko jaaga euh, mi yaayu Wally jaale ko moom mi jaale ko Wally Seck loolu laa ko wax ne ko tu as grande mission nag mission bi lay xaar adduna bi yëpp ci yow la ñu yaakaar parce que lenge bi ginnaaw yàlla sa papa jox na la ko ni mu gën a rafete mm, waaw am daf ko ko jox ci ni mu gën a ni mu gën a jekke ni mu gën a rafete projet bi nga xam ne yéen a ko doon waaj papa Idi waaw mais projet boobu mhm. ñu ngi ci même bu fi nekkatul sax dañ koy continuer ñun parce que comme ni ma ko waxee Seck c'était un missionnaire mm. te missionnaire bi mu doonoon et puis c'était un visionnaire visionnaire boobu mu doon mu doon ko mhm. dañ koy dañ ko fi saxal mm ba lu mu ñu mission de tek ko ci anam yu wóor Nous ko parce que nous ku ko xam ñu bari ko mais man bu buñ daan buñ daan gisee mak y yeneeni affaire la parce que xam depuis nga amé 14 ans ba ni nga plus de 60 ans donc xamna ko bu donc euh, motax makoy au nom de tous les Sénégalais au nom de tous les acteurs culturels du Sénégal maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana ci àjjanay firdawsi yi gën a kawe kooku suma xol laa ko tibbee di jël sama xol boobu nag di ko bokk ak sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen jëf un grand homme dimension mondiale nit ku dëggu nit ku sincère nit ku xamoon li muy def te bëggoon ko te joxoon ko ay teggin ndax nit nekk ci dara di ko def man ko te du te du ko jox ay teggin waaye mënoon na ko mi ngi ko doon def dëggaloon na ko ndax gëmoon na ko te doxoon joxoon na ko ay teggin muy Thione Ballago Seck ñëpp xam nañ Thione ci dëggam ñu mu dëggoo ñëpp xam nañ Thione ci ay wayam ñëpp xam nañ Thione ci mu ñi mu sibontané te noonu la ma nitu kese la woon moo taxit bi mu demee ñun ñëpp la bett parce que coon il a fait comme Thione c'est-à-dire ni mu ñëwee noonu la demee ni mu mel noonu la demee dañ koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana vraiment te yërëm ko jéggal ko ay bàkkaaram vraiment yàlla mën na ko ku bëggoon njabootam la te nanu fexe ba héritage bi ñu fi bay bu ñu ko yàq waale kese moomu ko waale mujjee judd ci musique bi kon ñun ci lañ bokk am nañ ci wàll te dinañ ko doxal ni ñu ko war a doxale ba duñu jëppi bu ñu ko fekkee yàlla na yéex asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaw wàll li ma koy dénk mooy mu topp tànki papaam pap parce que papam liggéey na fi ba jóge fi defu ci dara lu ñaaw lu di def

barki dem gis ngeen ko fële ca ca ca ca Gambie euh, mu may way way neex yoo xam Sénégal yëpp gis nañ ko loolu respect la. ay waxoon naa la dinaa la woyal Bantamba woy na ko woy wi du xew ba mukk ci àddina loolu coon la yàlla na sama mag la woon sama xarit la woon bu xawee bëggee laaj dara woo ma bu ma xamul dara woo ko mu doonoon nit ku baax yàlla na ko yàlla xare àjjana. jaale Sénégal yëpp euh, ci ki nga xamante ne kii moo fi wàññeeku. di Thione Ballago Seck du sunu xarit du sunu wóllëre euh, di ko jàllee ci turu kullu artiste di yëngu ci wàllu théâtre wàllu cinéma même sax ci wàllu musique euh, Thione yoon ku baax wax dëgg yàlla li tax sunu ñëw fii bu dul sax la fait nit la mbindeef la bu sunu borom bi sàkk comme ñun dafa baax bu wàññi ñu dem jàll ko jàll ji mbokkam rawatina nag ñu bokk liggéey ci

Euh, sunu kàddu sunu kàllaama sunu xamxam xam sunu xarañtaay xëy na suñ ci dugalee sunu baat dana am lu mu def ci askan wi waaw moo tax ñu partagé ak moom ñu doon ci waxtaan nag au ba bi nga mujjee ak moom yàggul euh, bu bu tolloo ci ci weer rek ci la war a yem wax ma ni Balago TV mi ngi fi da nga war a ñëw nga bokk ci ñi ko yor ñi war def ay émission ak yooyu ba mu nekkoon waaw amul problème incha allah rabbi nañu fexe ba yi jeex rek bu jeexee rek ñu dugg ci waaye nag yàlla dogal na li ma dogal ñu koy ñaanal nag sunu borom yal na ko xaaree àjjana yërëm ko euh, jégal ko lépp loo xamante ni mos na ko rëccu ci am parce que ku nekk jàpp na coon defarkat la du koy yàq nitu dëgg la itam su amee lu mu comprendrewul euh, am na fitu taxaw ni lii comprendre ma ko su dëgg jotee war ko wax ku nekk xam na ne wax ko ci dëgg la parce que loolu lañu ñu soxla ci jullit jullit doon lay def waaw ku bëgg a njabootam itam ku bëgg a métier bi euh, ki nga xamante ne nag moo fi nekk tey di waali di doomam am na yeneen doom dëgg la mais waali bokk na ci ñi ki nga xamante ne mën nañu wax ne moom moo gën a euh, taxaw ci wàllu musique ci ay tànkam ñu nag mu gën a góorgóorlu euh, jaar fa papam jaaroon ëpp ko sax mbaxta taba parce que ku nekk da ñaan soo amee doom dëng ma doom joojee ëppale la ci ay xam-xam ci alal ci am-am ci wér yëpp parce que ku nekk la la ñaan kon nag ñu ngi ñaan yi mu taxawu baay bi taxawu njaboot gi itam ni mu ko daan defee dëng

incha allah. te waxuma bari na. waaye yow ma bañ a wax. waaw ah, yow. Ah, mais maa lay giñal ni. Mm-hmm. suñu papa. Mm-hmm. mag xarit yaay. moo dem. bu bett ñu loolu nag. bu bett ñu lool mm-hmm. bett ñu métti. mais boo xoolee ñi ko gungee. ak ak ñi nga xam ne tey yenn wuñ ci jàmm. Mm-hmm. da ngay delloo sa xel suñu borom rek te xam ne euh, ñooñu yàlla nga xam ne yàlla def na euh, coon coon toll leen foofu. Mm-hmm. muy mbirum suñu borom. dañ koy delloo sam suñu borom gannaaw 66 ans la am. Mm-hmm. te allahu dégg naa mooy 60 mooy 66. rafet njort. rafet njort waaye maa lay gëñal ne ku baax ku am personnalité ku digne. ku am diine. ku bëgg Seydina Muhammad Rasulullaah dem na julit piir dem na ak kan xam nga li ma lay wax yow xam nga dégg waaw wax dëgg yàlla donc te euh, bi ñu tuur tànk ñun ba toll nii dépense ba ba léegi mooy dem moo mos yor waa kër moo mos a yor waa kër bàyyam yor yor ko yor waa kër ndeyam yor ko ñu bokkal ndey bàyyi donc jël naa ko jële jële jële jële jële jël ba kenn di ko jël yi mais yàlla baax na yàlla baax na donc euh, wax naan daal Omar wax ji daal tax na waaw